برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله يسنت يا ربا نيواصل يا ربا يا ربا xelaat bu baax day xool doom ji rek doom ji suur yàlla yàlla may ñu dégg ñu xam ne bi te wax na leen dëddugul tam kon jarul muy ñëw fii ñuy rëj rëjloo ku ko soxla rek bu demee kër la dem yàlla am na ay jaamam yoo xam ne képp ku leen xool pour siyaar bu mag bii nga xam ne seen nekk لكن بسيارة بنواي بسيارة مكم سيالا غير شوفل أقنن فور دجن مم لدون مراكة أم نبونك سكننا ودراهن نب نيو نيو سيارة لتنيريا سيغاتا ري شيخ الله رضي الله عنه دي ديك سي حضر السرين يم فور سيارة كو pour tepp li nga xamanteni moy joge ci serigne bi ci ay maarif ak i loolu mooy tax mu koomloo résultat ak tarbi Cheikh Ibrahim dag yoo xam ne na ngeen xam ne koo yokk si yàlla lu mel ni siyaare xañu bépp xañu mi ngi si ñàkk ku ñàkk siyaare sa sëriñ rek loolu teg Cheikh Ibrahim dag yoo xam ne xaatu rabbaani toujours dangay wax ak tarbi bi ne ko allati yuntafaau bi mutaabaatihi wa moy lan moy melokanu talibé bu dëggu bo xamné top topp gim topp sëriñ dinaa wax ne ñun talibé bàyyi la wax buum gi ñu takkee ak mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ak buum gi ñu takkee inna li kulli da'watin wa kulli harakatin mabadia wa asasan wa naanu mabadiuna la ilaha illa allah wa ifraadu lwitati lillah ومداومة ذكر الله وإخلاص العمل لله ومحبة أولياء الخلق مع عباد الله أولي بالله وبعباد الله وسهود المنة pour jubal minde fi ak méngale len ci jubal len ak sen borom mune serigne bi mo yeyo top topp set len serigne bi ba xam kep kuko top rek waxuma kuko topante kuko top rek jub nga motax mawdana mawdaana rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxne wax nga laaj borom xam-xam yi bu ngeen laaj laaj len borom xam-xam xam ngeen serigne bi mom borom xam-xam la ndax Baye moko ko wax Baye moko ko wax ne xarrir uluma shari an nahwi ta daf ko gorel goreelal xam-xamu sharia yi gannaaw bo gorele nahwu bul si am de kun hil sa baytika ma'at tahara wa faqiran aqranaka bil bilmahaara والله يقضي بالهلوم ظاهرة لك بمن يسفو عند الآخرة نانا تقوى لك سنيك نيك أمرك لا تقوى موتا دوكو يتج بو نيه في نيو گردي گردي نيو نيب سنيو تالوه موويرو رك من مي ما سنجك مي سويرون بس بو نك بو ندمه كرم رك تا بو ندمه جيري نيو لنيو دف كون نك دم سنجرين دفا دم موتا سنجبوغي سوليسون ak aduna bi di am mom dafa nek Dakar pour jeriñ ñu mission wu baay la te maa ngi leen wax ne bala mu fi ñew est-ce que faydu bi melon na fii nii yéen ñëpp laay laaj léegi muqaddam bu nek mi ngi ne mo fi taal faydu ta xamul ne lay yëngu la ko yëngal ëpp doolé bala mu fi ñew melun ni dé daf daan nam sikar dem ba di dem fu waaye bi mu demee koñ bu nekk sikar na fa ba koñ bu nekk léegi sikar tàkk na fa léegi nag ku nekk di fa gis dana naa man la ana ana laysa huwa kim doon du wax man la day def tekk tekkaaral comme moom yàlla na ko fi yàlla yàggal yéen a mag mooy ñi mag ñi def mag te moom bàyyi moo ko def wa rasulihi wa cheikh tijaani mu ne yow tijaani wa inni kama qaala saa'id moom la ñuy wax mooy kabiir yàlla namu yàlla mooy mag wala kum namu raadibu wala baana fasaadu ra'yi ba kun dawaaman sattisa fa qata'un li shaykhi aqwamu wa alyaqu min al muridi indama al aqal kii la bàyyi wax ne yéen daanaka yi buy la ut sëriñ na ngeen sàkku murabbi mooy koo xam ne dafa tarbiya ba pare xam nga ñu bëri dañuy wax ne juróomi ci teel yi fakkil xattarin ne ku tarbiya mu tarbiyawaate am na ñu bëri nag ñu ngi wax fii mënuñ leen a wax sax ku leen tarbiya kon ko mënu tarbiya xam nga sëriñ bi moom gis ngeen ko kon xabiiran koo xam ne dafa dem kumpa moom la ñu tuddee léegi si la xotul xajib mooy expert naa si xam ku laa biir wallahi sëriñ bu dafa laa moom yàlla rek سنكيب مولا انتريز ميو لما قبل سنين بي لما لا بي لخيا لك موجه لجوحي لأخذ ريالة الدارة نكتب على ما قال الله باقي على إن أستقى كلمة قالها الشاعر كلمة الويجين على ما قال الله باقي كان العرفان كوكم قم يا الله بكم سك دوم بانينا لن يمجس ينطرك بانينا من يلعن ñu nekk ñu naan doom bàyyi xamu yàlla mu ne laa ilaha illa allah koo xam ne bàyyi nee na talabtukum bil xëy wa antum awliyaa lillah man sàkk naa leen si xëy bi ay wali yàlla ngeen yow yaa ngi reyante pour nekk wali yu ñoom soxla wuñ wali yu wali yu la ñu commencé jëm kaw imaaman borom ndigal la borom ndigal moo ko jox ndigal te mu Cheikh Ibrahima moo ko jox ndigal saalihan ku yiw la shari'atu gis nga notub xaqiqam xaqiqam notub shari'am sëriñ bi boo jokkoo moom da ngay wax ci nitu sharia kese la bàyyi mu ne kii nag boo ko amee moom loo ko soxla bul fexee ci melal ni niw daa iman soo ko defee dee da nga xibaaru de da nga xam dara boo ci jëlee de bul wuteeg moom donte kon dër na yàqu ak disam te gisam du yàqu si yow la yàqu nekkal daayiman koo xam ne da ngay roy mooy njuumte loo xam ne sëriñ bi la ñuy àll moo gën a yeewoo topp moo gën a taxaw dëgër si dëggu taaliba bi si ki nga xamante am na xel. mbokk yi man mënuma jàngale ci kanam sëriñ waaye ñaareelu tomb bi lay dem si gaaw mooy murid sadiq bi nga xam ne bëgg naa jëriñu si topp Cheikh Rahim wax na mu ne si kàddu ilbaas amma wujubu talabi cheikh al murshidi فواجب على كل من نرى أهوال النفس وعرف مراد الحضرة من كل إنسان منك أما سك سري وقم لدول جبتي الله من الورى سي أنا مجسم وقم لقول الصحابة بكر تنمي موي صلاة كنت يعني كتير دهيا مولو نعم نعم هذا الناس يوين تخمني موي صلاة mooy képp ku ko xool rek da ngay xam ne sàkku sëriñ nag lu war la si yow mu ne la lu tax yàlla nee na ci alquran wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma jinne nit lu dul ñu jaamu ma bàyyi mu ne yaa ni bi ya'buduni li ya'rifuni li mu jublu si ñu jaamu ma mooy ñu xam ma soxlawul si ñu ma sëkk soxlawul ñu leer ko ndax mooy ar-razzaqu zul quwwatil matin mu ne radiyallahu anhu mu ne li mu soxla si sëriñ boobu nag mu def ko si taalibe taalibe bi li mu bëgg si sëriñ bi mooy mu dimbale ko ba mu am as-sidqu fi ubudiyyati wal qiyaamu bi huquqi rububiyya mooy mu dëgg si ñaamu gi nga ne nekk na ko ñeex yàlla. borom rububiyya comme ni ko mursid jàngale yushabu cheikhan aarif almasaliki yaqihi fi tariqihi almahalik yudakkiruhu llahu iza ra'aahu wa yusilu alabda ila mawlaahu bàyyi mu ne ku xool xaalu bakkan nag xam muraadul xadra si doom aadama bu nekk kooku mooy taalibe bu dëggu képp ku xoolagul lii rek yow da nga bëgg rek aman na li nga bëgg nga am ko wala nga ñàkk koo am mais nekk goo taalibe bay dëggu moo tax Cheikh Tidiane radiallahu anhu Cheikh Ibrahim mu waxaat mu ne وكل من نال الصدق في جانب الحق فقد صلح حاله وتم أمره وكثيرا ما تجد من يسلك طريق أهل الله ويفوته الصدق ومن مصاحبته ما الأسياق تصيه نسبته فيما بينه وبين ربه وإخلاص المعاملة فلا جرم يكون مريدا صادقا باي مني رضي الله عنه مني كيب كو خمني أم دقو si يا الله sa bëgg yàlla wóor na dëggu na mu ne kon de sa mbir yëpp yéwén na sa mbir yëpp mat na mu ne bari na nag koo xam ne day jéem a yoonu góor yàlla yi waaye fàtt na ko ak dëggu si kàndaale gi muy kàndaale sëriñ si après mu ñàkk jëriñu mu foog ne sëriñ si la fekk moom moo dëgguwul ndax baay moo ko wax laa ma indana illa bi sidqi wal mahabbati li fi ñun kenn du ko jot lu dul si dëggu ak lan am mbëggeel waxna ko fenen nidhum wasidhum sidhum bi qadri sidqi kulli muridin wa bi qadri shawqi bay mu ne su deggo yàlla mun na koo dimbale mu nek talibé bu dëggu boba dana am xaradam way su deggu rek dana ko jafe mu am namelam si sëriñ si ndax mu ne sëriñ si ñom duñ jox sen mbiri luddul ku dëggu ndax ku deug mo meuna a mbir yi continuer ko kon ku deugul doo ko mën a te ñom duñ jox mbir yi kudul borom te buñ la ko joxe te deug wo kon do donn mbir yi abu ya'la wax na ko yakarna law anna rajulan jamaa al uluma kullaha wa sahiba tawa'if an-nas لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالريادة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح mu ne واي waay bu borom xam-xam yep mu bolé ko ànd ak mbolam nit ñi mu ne du ag mukk fi góor yàlla yi yegg ludul man ludul lan ludul mu tagat bopam way fan la koy tagaté day ànd ak serign bo xam bu mat serign la comme ni ma len ko waxé ak iliman bo xam bu am ndigal la ak ko xam da fay yare ak ko xam ko ku la Cheikh Tidiane radiallahu anhu daldi wax ne ilam anna al murida sadiqa هو الذي عرف جلال الربوبية وما لها من الحقوق في مرتبة الألوهية على كل مخلوق وأنها مستوجبة من عن عبيده دوام الدؤوب بالخضوع وتذلل إليه والعكوف على محبته وتعظيمه ودوام الانهياس إليه وحكوف القلب عليه معرضا عن كل ما سواه هبا وإرادة فلا غرض له ولا إرادة في شيء سواه لعلمي أن كل ما سواه كسراب بقيعة يأسبه سمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجد سينا وجد الله عنده وبالقتام أسأل الله تعالى متوسلا بسره وسر سره أن يفيد علينا وعليكم فيودات القتم التجاني وأن يمدنا بمدده الرباني وأن يطيل بقاء الشيخ فينا والسلام عليكم ورحمة الله الله برهام باء وراء ألف ثم هاء